اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله ولئن اتبعت اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم maam sëñ Saliou moo jamono yi surtout maa jamono yi mujj sax dafa wa وما كان لرسول أن يأتي بآية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 ihdina siraatal mustaqim siraatal ladina anamta alayhim gayril maxdubi alayhim wala daalin ginnaaw bañ sante yàlla julli ci seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam ñoo ngi sant yàlla bu baax tey jii ñu ñëw fii ci sookaanu fekk fii sëriñ baara mbàkke ngir liggéey bi nga xam ne sombi nañ ko te mooy taxawu daara taxawu daara nag boo ko déggee ay ndaw lañ yoo xam ni dañoo jóg di dajale li ñu am ngir liggéeyal yàlla waaye nag jaaree ko ci alxuraanul karim ndax yàlla dañu képp ku ma lebal benn ma fay la ful ko ñu jàpp ni lebal yàlla moom segam gisuñu yàlla ci jaamu yàlla yi rek lañ ko mën a lebale lebal ci jaamu yàlla yi nag gisuma lu ci gën a kawe def ko ci alxuraan te mooy waxu yàlla bi nga xam ni moom la jaarale ci jibril mu wàcce ko seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam jooju yàlla da koo def mu gën téere yëpp waaye li ci gën a yéeme mooy ci lu mu nekk du bokkak lu mu nekkul ndax yàlla moo ko wàccee moo ko jox jibril jibril gën ci malaaka yépp jibril indi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi sallam gën ci yonent yëpp mu wàcc ci weeru koor weeru koor gën weer yépp waaye mu wàcc ci guddig laylatul xadri inna anzalnaahu fii laylatin laylatin mubaaraka googu muy laylatu xadri ci li ëpp li nit ñi wax laylatu xadri daal di gën ci weer yëpp kon noonu la ko yàlla def ñun nag sunub liggéey ci loolu la jëm waaye tamit tey ñu ñëw fii ci sookaanu muy daara joo xam ni sëriñ Baara Mbàkke lañ fi fekk mu yor fi ay donga bàyyi lu baree bari ñëw fii toog di yar ay donga waaye nag di leen jàngal alquranul karim ku gis fii yoon wi ak ni mu soreek ni mu jafee dem ku fi ñëw di nga xam ne fii yàlla képp moo fi nekk gis nañ lu nekk nag waaye fii ku fi yegg si di nga xam ni ki fi toog yàlla dong ko fi tax toog gone yi mu yor amul lenn lu muy laaj wa seeni waajur lu demee ni ak pay moo leen di yor di leen yar di leen jàngal alxuraan ñun nag sunum ndimbal foofu la jëm ñu fa yéene koo def nag ci bépp daara joo xam ne mu ngi fii ci Sénégal lii ab tàmbale la rek ab tàmbale la rek ñu ngi ko yéenee def daara ju mën a ju mën a nekk foo mën a nekk danañ la fa fekk incha allah indi la sunu ndimbal tey nag ndimbal li gis nañ ko nii tey ceeb lañ fi indi ndax ci lépp ci wàllum dund rek la jëm muy ceeb ak diwlin ak suukar ak saabu ak kafe di ñaan nag yàlla mi nga xamante ne nii moo xam ne nekk ci biir xol yi mu def liggéey bii mu nekk liggéey bu bu féete kaw bu jëm kaw liggéey boo xamante ne nii danañ dem ba daara fu mu mën a nekk ci Sénégal ñu fekk la fa defal la ndimbal lu mel nii wala lu ko raw dinañ ci dem bay tabax lu mel ni jàngukaay ndax fii ku gis tey daara ji fii di nga gis ni manqué nañ foo xam ne danañ fa toog lu mel ni mbaara mbaar mu ñuy jàngee alquran loolu dinañ ko boole ci pas-pas boole ko ci yéene yi ngir def ko fi incha allah jërë ngeen jëf kontaan nañ lool. waaye it noonu laay santee ñi nga xam ne ñoom laa bokkal liggéey bi muy waa taxawu daara ak foo mën a nekk ci ci àdduna ndax bëri nañu ci nekk ñii a ngi Sénégal ñii ngi feneen waaye ñëpp maa ngi leen di sant gis naa seen yéene gis naa seen bëgg a jëfal alxuraan noonu tamit laay woowee képp koo xam ni bëgg ngaa liggéeyal yàlla jaare ko ci alxuraan di la xamal ni moom li bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin sayidina mawlana muhammadin xaatimin nabiina wa imaamil mursalin ginnaaw bu nu yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoo ngi sant Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul tey ñaanal Sëriñ taxa mi nga xam ne moo toogee jataayub Sëriñ Tuubaa ñoo ngi koy ñaanal jataay bi na yàgg ba yéene jëm am ci liggéeyal ko lifi fi waajuram ya ak magam ya ak maamam yi bàyyi woon yàlla mottali ko ci loxoom loolu it moom la ñuy ñaanal ki nga xam ne moo toogee jotaayub Serigne Mor Diarra muy Serigne Abdoulahi moom it yéen ji mu am ci liggéeyal maamam ji yal na ko yàlla mottali lépp kii wax benn donga la bu ñuy wax Baara Mbacke moom Serigne Modou Mbacke moom sëñ Baara Khourédia moom Mame Mor Diarra nekk fii ci benn dëkk bu ñuy wax sookaan ñu taxawaloon daara ji depuis 2011. te loola li taxoon ñu taxawal ko jàppale sëñ bi ci liggéey bi rek lañ ca jublu woon dañoo jàpp ne ci suñu xalaat bu gàtt liggéeyu sëñ bi moom dara kawewu ci jàng ak jàngale ndax sëñ Tuubaa moom loolu dong moo nekkoon li ko taxoon a jóg jàng ak jàngale ak yar ndax jullit bu nekk rek ci juróom yooyu ci la wala tënk liggéey jàng liggéey ak jaamu yàlla jàng ak jàngale ak yar juróom yi rek la fi sëñ Tuubaa bàyyi woon loola dong la ñuy jéem a xeeñtu ci bërëb bi bërëb bu ñu taxawaloon ko depuis 2011 biñ fi ñëwit genn gone rek lañ àndaloon ñëw fi boobat xeeñtu li fi mag ñi bàyyi woon rek loolu lañ ci jublu woon gis nañ ci ay buntu nag alhamdulilah ndax di olof yi di wax naan ku santul rek danga ngaa xarab waaye ñun sant nañ yàll ndax bi ñuy ñëw fii fekkuñ fi dara bërëb bu kese rek lañ fekk lañ ko tàmbule woon ay sàkket la woon ak ay néegi ñax yaakaar naa ne lépp soppiku wut waaye mi ngi ci yoonu soppiku loolu lépp nag ci mbaaxug yàlla la rek ak ndimbalul Sëñ Tuubaa daara ji ni muy doxe mooy sarti yi bariwul moom daal bu doon gone goo xamee ne bu dikkee dana indil jafe-jafe ay ci daara ji rek leneen li ci des lépp moom daanaka tegg nañ la santuñ kenn mu wutub téere faj lawuñ kenn def lawuñ kenn dara lépp ñoo koy yor ngir yàlla lajuñ kenn ak fayet ki fi nekk ci jàngale tamit lañuy ñuy wax ak moom bu déggoo ci ak moom lu bu weer dee ñu di ko ko jox loolu sàkkuñ ci ndimbal ci kenn lépp dañ koy delloo ci yàlla rek te yaakaar naa ne tardé wut ndax bu doon tardé yaakaar naa ne du ko du fi toog di ko xaar loolu nag su ma am ndimbalul yàlla rek moo tax béréb bi niñ ciy doxee mooy ku dikk. te jàng tax laa jóg ñu dimbalante ak yow ci anam googa ngay jàng soo demee ba alxuraan ji tax nga boole kook di beq ñu commencé la di la jàngal yenn téere xam-xam yi ndax comme waxtu dafa gaaw léegi te gone yi daanaka xaaratuñ ko fi ñu commencé yow di la jàngal tu sodi sixaar dañ la jàngal naaju jawaru nafis muqaddamatul hisiya ndax alxuraan ji baax na waaye nag lay la lay dimbale ci alxuraan ji nag mooy xam-xam ba moo tax toujours ñaare duñ xaar ba alxuraan ji jeex dëgg-dëgg bu xawee retax ba ba ba tax rek ñu xam ne xam-xam bi mënatu cee yàq dara bu ngoonee rek moom danañ la wutal téere boo xam ne moom ngay jël di ko jàng nga ne bu ëllëgee li olof yi di wax naan fu mu yem neex lay nekk ndax gone yi si dañoo xaw a yàkkamte léegi mhm. noonu mooy mooy mooy mooy doxinu daara ji 2011 mhm. lañ ko lañ ko lañ ko taxawaloon loolu it comme niñ ko waxee rek xeeñtu ci yàlla rek moo tax ñu di ko ñu di ko ñu di ko ñu di ko résultat yu bari nag génn na fi ñu sante ko suñu borom tabaaraka wa taala ba ñi fi génne am na ci ñoo xamee ne ñi ngi jëlaat seen loxo sax di ko dugal ci ci biir daara ji donte seen man-man bariwul waaw donte seen man-man bariwul waaye ñu ngi ko ñu ngi koy def initiative bi nag lu am solo la ndax boo gisee ñun su may wax ne damay dañuy dañoo bokk ci askan wi ba pare ñu bedd yi ndax dañuy wax ne day mel ne làq doom duma doom la ndax ki nga xam ne dañ ko defalal benn école di ko jox ay fourniture wutal ko ku koy jàngal am ci ñoo xam ne dañ leen di wutal sax oto yu leen di yóbbu ki nga xam ne nag moom tànnut jàng loolu te nekk ab citoyen nekk ci réew mi am na sañ-sañu nag tànn lu ko neex mu jàng ko kon kooka réew mi ñoo ko war a encadré ci la mu bëgg a jàng ñu fekk si ko ca dimbale ko ci malheureusement loolu amul ñun kenn fekkuñu fi ak dara lu dul ndimbal yoo xam ne ni koy def dañ koy def coobare wu rek lañ koy def ngir yàlla rek ak liggéeyal diine rek waaye lenn luy jóge ci état du benn dërëm wala benn ñaar dërëm boo xam ne daf ñuy fekk si fii ñu ne la diw moo la ko jox mu doon sa àq joo xam ne day war a dellu siwaat ci yow déedéet te pourtant ay citoyen lañ ne ñëpp am ay suñuy sañ-sañ am suñuy droit yoo xam ne dañu ko war a jox ñuy fay ay lemp fay ay lépp loo xam ne day delluwaat ci ñoom kon sañ-sañ bañee am sañsañ boobu lañ war a am kon dañ ñoo war a encadrel xale yi ñu am lu ñuy dundee di sangu ba set di leen wutal ay yére bu ñu wéradee ñu faj leen li nga xam ne ni lañ koy defee ci yeneen bërëb bi waaye loolu lépp amul waaye nag ku féete ak yàlla ñaare doo des ginnaaw loola moo tax fu ñu teg suñ jéego suñ tànk tey rek boo ëllëgee ñu mën koo tegaat feneen taxaaruñ xaaruñ ci kenn euh, initiative bi nag muy taxaw daara ñoo ngi leen di delloo njukkal bu baax ndax jëf ji nii jëf ju rey la te ko taxaw ay mbokk lañ yoo xamee ne ñoo jël seen dërëm ak seen ñaar dërëm boole ko jàpp ne liggéeyal yàlla moom yoon wi ca gën a gaaw mooy alxuraan ñu jël alxuraan muy seen jubluwaay te loolu lu wér la te ndax àdduna nit ki daf fiy nekk ab diir bu gàtt war a demaat ci beneen bërëb war faa nekk dek nekk koo xamee ne abadiya lay nekk kon war na am lu mu jiital suñ borom di wax naan wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu indallah kon jiital loo xamee ne bu ëllëgee danga ko fa fekkaat lu am njëriñ te Sëñ Tuubaa di wax ci masaalik ne ñi nga xam ne ñoo génn àdduna liñ gën a bëgg ci seen àdduna mooy liñ gën a bëgg mooy dellu siwaat mën a jëf jëf ju baax joo xam ne bu ëllëgee buñ delloo dana leen mën a jëriñ mais day fekk mu wees ndax innaka maytun may na ko maytoon su may na ko yomal xaamati tubxasuuna nit ki bu xasee faatu moom jeex na kon day mel ne ginnaaw gisaguñ ku dem dellu si li gën a wóor te nit ñi daanaka amatuñ jotuk di fàttaliku nit ki ak di ko ñaanal ci yenn yi ndax itte yi moo bari kon nag defal sa bopp loo xamee ne bu ëllëgee boo demee man ko faa fekk mooy li gën a wóor waaw laysa lil insaani illaa maa sahaa wa anna yow sa fa yura yàlla du sàkk du sànk dara dara dara du sànk dara lu nit ki def rek dana ko fa fekk bu joxe ci ay misaal yu bëree bëri masal lasino am waalum fi sabilillahi kamasali habatin batat sab'a sanaabila fi kulli sumbalatin mi'atu habba wallahu yudaa'ifu liman yashaa wallahu waasi'un aliim الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يرجعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون mu mel ne boo jëlee wenn fepp dugub nga ji ko mu jox la juróom-ñaari gub gub bu ci nekk def téeméeri fepp yaakaar naa ne loolu bénéfice gënu koo gënu koo kawe gënu koo kawe gënu koo kawe allazina yunfiquna amwaalahum bi layli wa nahaari sirran wa alaaniyatan wa lahum ajruhum inda rabbihim mu mel ne aayaat yi bari na lool ci liy tegtale ak di soññee ci jëf-jëf ju jëf ju baax kon suñ bas yaag ñi nga xam ne yéen a ànd liggéey bi ñu di leen di seedal ne de jëf ji dugal ngeen ko fi ngeen ko war a dugal jëf ji ñu am yaakaar la tamit mm. ñi nga xam ne ñoo ci def seen lépp seen dara muy am lum bu kenn xeeb dara kenn xeeb dara kenn ku ci nekk na na na jàpp fa ko war a jàppe rek te xam ne yàlla lay defal boppam lay defal njaboot yi seen njaboot la doom yi seen seen i jarbaata fi nekk seen lépp fi nekk ndax am na ci yoo xam ne mun ta xaar ndax gone gi jékki-jékki tëdd tey waajuram nekk tubaab wala mu nekk Ndakaaru xam nga ne kooku kenn du ko xaar ci ordonnance la ngay jëkk a def rek mooy jël yóbbu ci poste de santé bi bu ñu bindee ordonnance obligatoire pour nga jënd ko am na yoo xam ne mënut a xaar ndax asgoor yenn yi waaw ndax dénkaane dafa fort te nit ki la wóolu ba jël la li gën a ba dénk la li gën a fort ci moom muy doomam loola la ca war mooy nga def ko ni sa njabooti bopp te it loolu rek lañ ci fas yéene te def giñ koy defit yàlla rek lañ ci wettalikoo xaaruñ ci xaaruñ ci xaaruñ ci kenn waaw xaaruñ ci kenn kon ñu xam ne ku ci def sa dërëm na nga xam ne lebal nga yàlla te yàlla la mu waxoon man sa la si yoxatulaa xardan xasanan fa yudaa'ifahu lahu moom boo ko defee daf la koy fulal ndax wax na man jaa bil xasana fa lahu asru amsaaliha waaw boo ko defee benn mu defal la fukk yaakaar naa ne loolu jëf juñ mën am yaakaar la kon jëf ji jëf ju juñ dugal fañ ko war a dugal la jëf juñ am yaakaar la tamit jëf juñ am yaakaar la kon ñoo ngi ñaan sun borom mu taxaw leen ci te dëgëral leen ba yéene ju ngeen am ci àggale ko fu ngeen ko bëgg àggale Eh, yàlla defal yàlla defal leen ko noonu ndax yàlla moom ki munta kim ki ki mu xamul nu mu koy def mooy ki jaarut ci yoon wi waaye ki jaar ci yoon wi du dox ndànk-ndànk rek yàlla moo koy gàttandoo ak yërmandeem moo wax ne wala si na jaxadoo fii nax di yen moom subulana kon xëy na kàddu yi du gudd ndax xam nañ ne li taxoon ngeen koy def jubluwaay bi ba ngeen koy xalaat ak di ko dajale di ko def baara mbakke yëgu ko tinu ko kon bu ngeen ñëw kon kàddu yi dafay lu munta ñàkk rek ndax lu mbooloo bokk faaw ñu waxtaanee ko loolu rek moo mooy mooy moo moo tax mënuñoo ñàkk yëkkati kàddu waa ñu di leen seedeel ne yéen ñi ci dugal seen dërëm ñëpp jëf jaa ngi nii agsi na la taxoon ngeen koy defit yal na leen ko yàlla nangul te fulal leen ko te li des ci yéen yal na ko yàlla barkeel te fu ngeen teg seen tànkit na ngeen xam ne foofu la bu leen ko teg lu baax moom kenn du ci des na ginnaaw ndax dund bi dund bu gàtt la boo xam ne day jeex ñu war a demaat beneen bërëb war faa dund dund bu yàgg boo xam ne lu ñu fa woon rek duñ ko fa fekk